Nogamin dafa nekk société ba nga xam ne da xale ban ko créer yàggul ba mu juddoo yàggul te jël na engagement yi nga xam ni tey mën naa ne am na société yu ko jiitu fii yi ko ëpp doole mais jëlu na engagement boobu yàlla dimbali na ma la ma doon séentu si sama liggéey tout au début ba mu jaral ma ma jël engagement bi yàlla may na ma ko tey maa ngi koy réaliser euh, kontaan naa bég naa encore ba ma yàlla dimbali ma réaliser samay engagement tey maa ngi offrir benn ambulance médicalisée à la commune de Tomboronkoto joxe ay fournitures scolaires à douze écoles de la localité deux mille trois cent soixante élèves également di primer les meilleurs élèves trente neuf meilleurs élèves joxe des attestations de formation au GIE des femmes au GIE des hommes et des kii jeunes. également ya y a vingt permis de conduire disponibles yi nga xam ni joxe naa ko tey jii nii euh, que seen i borom former noonu leen instant bi mën noon dawal am nañ seen i permis même tey societé bi bu leen jëlul mun doon dem feneen wuti liggéey si kaw loolu pour encadrer leen ah et puis damaa jël euh, vingt millions daal leen koy octroyer ñi nga xam ne formé naa naa leen bu pare pour mun leen teg si yoon encadrer leen guider leen pour que ñu mën a atteindre seen objectif. beneen bi mu siy dolli mooy fi nga xam ni falaa tàmbali sama exploitation damaa fekk dëkk bi dafa lëndëm bu timis jotee ñëpp fàttu dëgg seen kër tamit yàlla dimbali na ma jëndal naa leen ay lampadaires. lu toll si 40 lampadaires tey jii boo demee bu guddi jotee dëkk bi yëpp leer donc maa ngi siy sant yàlla di gërëm bu baax alhamdulilah. ñàkk xëy ndaw yi si zone bi man dama naan dama siy génne loxo état parce que pour man je suis l'exemple man war na mën a roy si man ndaw laa comme ñoom tey maa ngi ñëw seen biir. gaa juddoowuma fi mais sénégalais laa comme ñoom déggoo naa ak ñoom xamante naa ak ñoom maa ngi ak ñoom macha allah waaye li ma gis si ñoom waruñu mën a toog fii di ñàkk liggéey man mi am liggéey bàyyi sama liggéey ñëw fekk si leen seen biir liggéey ba tey ji ñëw di leen jàppale di leen wan yoon donc ñoom war nañ mën a def ni ni mel si kaw loolu euh, maa ngi ñaan jeunesse waa bu Kédougou di ñaan jeunesse bu Tambanumbia jeunesse bu Kerekonko jeunesse bu Tomboronkoto en particulier que ñu bàyyi xel si dara mooy que ni mën nañu réussir fii nii Sénégal que biir Kédougou tey jii man mi jóge Thiès ñëw bëgg a di liggéey fii di reyante fii di fi séentu dara di fi sonn parce que xam naan daraa ngi fii ñoom ñi jël gaal bi di dem ñii di jël yoon bi di dem dem ba Libi di fa subiir ay atrocités yi nga xam ni esclavage sax moo ko tane donc man xam naa si pour rappel am na juróom benn jeunes yi nga xam tey ñoom ñoo ngi liggéey si man. tante noonu jël yoon bi dem réussir nu coono gu métti lañ fa daj ñëw noonu maa ngi leen jël ñoo ngi liggéey maa ngi leen fay salaire ba nga xam ne ñoo ngi siy dundal seen njaboot di si régler seen i problème aussi damay joxe benn exemple da ngay gis benn ndaw ba xam day xëy suba dugg dem Jura wàcc indaale cinq cent mille mën na indaale un million ba mën na ko indaale par chance da koy am mën na toog rek mois du am sax juróomi dërëm mais mën na dem benn ñaari yoon indaale loolu ak la nga xam ne un fonctionnaire mënu ko sax am at mi yëpp. donc loolu tey jii ñoom bu ñu ko téye seen loxo ab diir lu toll si weer baa du ko mat dañuy dox ak seen tànk dem Jura amatuñu dara lu ko waral mooy am nañu yàlla richesse possibilité yi moom fi mais xamuñu nu koy doxalee. si kaw loolu formation boobu li ma si jublu que ëllëg ñoom ñu xam fu ñuy teg seen tànk bu nu yoree seen comme ñu xam naka lañ koy wéyalee pour mën see génn mën a développer seen bopp mën a suqali réew mi également. particularité bi Kédougou am mooy exploitation minière. te di xamal askan bi que ni du or dong moo am Kédougou Kédougou am na leneen lu dul or am na yeneen euh, ak activités yi nga xam ne war nañ ko fi mën a def bu dul or si exploitation minière muy que ni basalte moo ngi fi karo yi ñuy defar euh, fii lay jóge li si ëpp ak leneen ak leneen am na yeneen recherche yi nga xam ne ñoo ngi koy def bu ñu yàlla dimbalee incha allah dinañ si gis ay résultats. beneen bi mooy man damay ñëw imposer wu en tant que sénégalais parce que boo xoolee tout au début la plupart étranger yi ñëw ñëw imposé wu yor seen i grande entreprise di fi liggéey xool ku leen neex ñu jël ku leen neexul duñu jël et puis y a toujours des problèmes parce que manquement bi nga xam ni at mm, ñàkk a bi am ñoom ak population yi tey jii man damaa jóg taxaw daal di dindi loolu ba mu set pour lan parce que xam naa leen maa ngi nekk ak ñoom suba ngoon gu dégg bëccëg li ma wax du ma ko du si deñ dara du si deñ parce que ñoom boo gisee ñàkk a bi nga xam ne moo doon am seen diggante mooy que ni entreprise bi lu mu leen dig bu demee ba si yàgg dootu ko def ñuy am ay manquement donc tey société minière bu mag ak bu ndaw man tey moom laa yemale day liggéey di investir di def si état di def si population man damay liggéey di investir di def si état di def si population tey peut-être niveau bi ma àgg suba mën naa am concession minière ba nga xam ni tey du ma wax ay 106 employés mais dama naan des millier de sénégalais ñoom ñooy jóge feneen ak feneen à partir à travers le pays ñëw di liggéey si entreprise bi. waaw volet boobu am na ay jafe jafe-jafe. Hmm, bi nga xam ni moom laa si premier en premier lieu jafe-jafe bi ma doon njëkk di souligner moom mooy lenteur administrative parce que da ngay déposer sa kayit jaar fi nga war a jaar war a tàmbali sa liggéey mais am na ay lenteur administrative yi nga xam ni moom moo lay retardel alors que yaa ngi sa investissement ba nga xam ni def nga ko pare toog di xaar loolu la gis naa ni macha allah moo ngi dee deñ parce que léegi affaire yi nam doon yéexee bu njëkk ba léegi moo ngi gaaw alhamdulilah la considère la vérité dañuy waxante te dëgg tax moo ngi gaaw beneen difficulté bi mooy euh, ñun je donne l'exemple ñun en semi mécanisé tey jii man sama société damay ñëw fekk localité ba nga xam ni nit ñi ñoo ngi doon liggéey or jigéen ñi di for fa yi for di sonn am na fa dara ñuy dem man ma ñëw am fa mm, permettre nit ñi di fa liggéey mais tey du ma ñëw xañ leen lépp. damay ñëw une partie ubbil leen ay tranches ñu fay liggéey mais ma leen surveiller parce que tey da gis ñi nga xam ñooy demal seen bopp les heures-payeurs traditionnels toujours ñoo ngi si ay accidents si ay difficultés ou bien dugg si permis yenn entreprise yu mag yi ñu dàq leen ou bien woo yoon ñu jëlee leen indi leen ay bunu xattale indi leen ay jafe-jafe man ma foofu te ñaanuma yaa àgg ak ñoom foofu li ma mën mooy li as tuut bi nga xam ne maa ngi koy liggéey di si góorgóorlu maa ngi si xajal population bi di leen ubbil ay tranchées ñoom jigéen ñi ak ñeneen ñu mën a liggéey man ma liggéey kenn du yàqal dara te daa sama biir périmètre la ñuy liggéey